asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante saa suñuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions ñuy nuyu ñi nga xam ni ñooy sénégalais yi nekk ci biir réew waaye itam di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi nekk ci bitim réew di am ci ñëpp li ñuy tuddee mbégte ak kontaante mbokk yi ñi ngi nuyu bu baax ñi nga xam ni ñi ngi commentaire di joxe seen i gis-gis ci sunuy gis-gis parce que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy àddina parce que ginnaaw ñun bi ñuy joxe sunu gis-gis ci ay gis-gisu jàmbur ñeneen nit joxe seen gis-gis ci sunuy gis-gis loolu nekk loo xamante ni bi lu am solo la léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni rafetlu nañ say gis-gis ñeneen gisee neneen nu wuute loolu mooy li nga xam ni mooy doxal am réew réew buy dox ci benn gis-gis baaxul ñii dañuy gisee ni ñee gisee nale ña nga xamante ni bii ñoo gisee nale di tax ñi gisee nii di góor góorlu ci seen gisin ngir yëf yi mën a dox moo tax damay faral di wax ni réew bu amul opposition baaxul réew dafa war a am opposition am ay gis-gis yu wuute bokk na ci liy développé li nga xamante ni mooy am réew léeg-léeg nga dégg borom xam-xam yi wax ko ni wuuteeg boroom xam-xam yi yërmande la muy wax joo xamante ni bii wax ju am solo la nga gis dégg-dégg doomu aadama yi ni ñuy waroo ak gis-gisu doomu aadama yi mbokk yi ak xarit yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax di jàkkaarloog yenn di joxe sunu xalaat ci li nga xamante ni bii mooy actualité bi dinañ waxtaanee ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax seex Tidiane Youm Cheikh Tidiane Youm di koo xam ni mi ngi bokk ci parti boobu ji PUR njiit la di sëriñ Moustapha si mi nga xam ni mooy responsable moral Moustarchidine wal Moustarchidaat Cheikh Tidiane Youm danañ waxtaan. ci moom waaye itam dinañ waxtaan sunu gis-gis ak xalaat ci ki nga xamante ni kii mooy Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck ay kàddu yoo xamante ni bi moom it eh, yëkkati na ko mu nekk kàddu yoo xamante ni wane na ci ab njàngat mais ñu gis ci ginnaaw njàngat gi tamit leneen loo xam ni sunu gis-gisu bopp la lu wuteeg li nga xam ni moom la gis ba jàngat leneen li ñu waxtaanee ki nga xam ne mooy Barthélemy Diaz parce que sorteem bi mu sotti woon dafa bëri ay point yoo xamante ni point yu am solo la am na kàddu yu mu yëkkati wax lu mu defal doomu aadama loo xamante ni cour d'assises mënoon na ko cee fekk lii doon li nga xamante ni bi mooy li ñu war a waxtaanee naa ni boo deful ndànk Moodu danaa ko waxaat li nga xamante ni waxoon naa ko ko ci émission bii nga xamante ni bii moom la ñu génn parce que lim naa ñett ñi nga xam ni ñoom laa war a waxtaanee waaye fotob kenn Moodu wane woo ko te bu noppi nag bu paree mu ne ma say bët a neexut wane naa ko te donc dafa daal di ñett ñi mooy ñi nga xamante ni bii moom la ñu war a waxtaanee incha allah. mbokk yi ak xarit yi dañuy waxtaanee ki nga xam ni moom lañuy wax seex Tidiane juum mi nga xamante ni bii ñëpp gis nañ ko ci émission bi nga xamante ni bii moom la doon def foofu ci 7TV ak ki nga xam ni moom la ñuy wax a Ndour fay ci biir émission ba am na lu fa xew ñu ànd ak El Hadj Modou xool la nga xam ni moo fa xew je effectivement salaam salaam. il vous a envoyé un SMS. Euh, non bon il me dit salaam salaam ses propos te sont prêtés quand est-ce que j'ai désavoué Barth mais c'est pas j'ai jamais dit que Khalifa a désavoué Barth. je. Khalifa rafetluwu ko. c'est-à-dire Khalifa rafetluwul déjà échange yi am loolu du euh, bon mi ngi woote su ma nee rafetlu. mën nga ko def au parleur ah? Khalifa. C'est exceptionnel comme émission. Oui. c'est vraiment exceptionnel. Oui. Depuis qu'il est en direct. J'ai activé, j'ai activé, attends, attends, attends. Euh, Khalifa, Khalifa, Khalifa, j'ai activé le haut-parleur du téléphone. Depuis qu'il est en direct. Vous êtes en direct. Ah, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, non, je parle pas en direct. Ah d'accord, ok, il veut pas parler en direct. Ah d'accord. Euh, à toi que euh, on parlera dans après l'émission Khalifa. D'accord J'ai lu le message, oui. danaa danaa gën a leeral j'ai pas l'impression que dégg nga Très bien. Très bien. Bon, c'est une émission... Il n'intervient pas. C'est une émission non. assez exceptionnelle. C'est un talk show. Ce que je veux dire, ce que je veux c'est très clair. Dama ne Khalifa Rafael je suis pas allé au bout de mes, pensées. Euh, c'est-à-dire li am amul leader bu ko mën a rafetlu. jërëjëf El Hadj Modou Diouf ñuy am mbégte ak kontaante ci li nga xamante ni bii euh, gis nañ ko muy xalifa woote en direct. ñu bari dañ ne xalifa seetaanul émission bi moo tax mu woote en direct mais xalifa mën na seetaan tamit émission bi jàpp ni du direct mu woote fekk émission bi nekk en direct donc ñaari hypothèse moo am benn bi xalifa mën na seetaan beneen bi mën na ñu wax ko bu dee buñ ko wax nag moom boobu dafa gën a garaaw parce que bal bu dee dañu la wax da nga war a dem gëstu ji ba pare déglu li nga xamante ni bii moom la Cheikh Tidiane yu wax mais waroo tëb-tëb di woote te xamagoo yëf yi nu mu demee parce que kilifa du fonctionner noonu bu ñu la waxee ne la diw kilifa la dafa am noo war a doxalee maanaam danga koy mat wolof dafa wax ni lu waay di wuyu da koy nuru da ngay mat li nga xamante ni bii mooy kilifa lu tax bu fekkente ni bii dañ la wax nela la Cheikh Tidiane wax na ni lii nga wax ci Barth waroo yëkkati sa téléphone directement rek woo ko maanaam da nga war a def li nga xamante ni bi moom nga war a def mooy jéem a déglu ji d'abord li nga xamante ni bi moom nga def moom la def parce que mbir mi ci biir émission bi la moo tax ñu traité ko noonu supposons que ni ñu wax ko ko bu fekkente ni bi tamit dafay seetaan télé bi dégg li nga xamante ni bi mooy wax ji mu jàpp ni enregistrement la li nga xamante ni bi moom mooy li xew te man jàpp naa ni sax boobu nekkul boobu parce que li tax ma jàpp ni nekkul boobu bu fekkente ni bi man dama seetaan télé ma woo la gis nga yëkkati sa téléphone ñu ne yaa ngi en ligne kon xam nga ni kon yaa ngi seetaan donc war nga xam ni kon kii mi ngi en direct mais di ma que moom dañ ko koo kii kon dafay dellu rek ci ne est-ce que du lu ñu ko wax ne ko Cheikh Tidiane yu waxee na nii parce que nit ñi bu ñu jëlee ay kàddu yu nit di ko waxaat. du firi exactement li nga xamante ni bi moom la nit ki wax te xalifa rafet lu wut li xew loolu mooy wax ji gën a rafet ji ma war a mën a dégg Seex Tijaan yum wax ko parce que loolu wax la joo xamante ni wax ju rafet la parce que xalifa liw tax rafetlu ko mooy li mu wax ci réunion des leaders wane ni kuréel gi du tas kuréel gi du tas kon donc da ngay wane ni li jóg ci kuréel gi noonu ak problème bi nga xamante ni bi moo jóg problème bi du problème boo xamante ni bi problème boo rafetlu la parce que problème la boo xamante ni bi am na ba pare donc nag man damay ragal nag xalifa ak Barthélemy ñu jàpp ni xalifa moo yilif Barth fekk Barth moo yilif xalifa parce que loolu mën na ne parce que li ñuy wax est-ce xalifa moo yilif barte wala Barth mooy yilif xalifa parce que dama constaté benn mbir xalifa lu Barth bëgg dëgg-dëgg bu xalifa bàyyiwut moom mbir ma day yàqu parce que Barth moom dafay nekk li mu ne da koy doxal comme ni nga xamante ni bi noonu la ko war a doxalee toppatoowu ci lu jëm ci wàllu kilifteef xalifa nag moom bu dee dafa bëgg ku mel ni Barth jege ko nangul ko di ko wax ne ko yaay sama kilifa te doxeewu ko loolu day nekk beneen mbir moo tax ma ne est-ce que li ñu jàpp dëgg-dëgg ñun mooy li ne est-ce que xalifa mooy kilifa Barth wala Barth mooy kilifa xalifa parce que yu mel nii nga nit ki wax way laa ñu wax la xawma bu mu ci doon nga dégg tell rek daal di bëgg a daw rapidement pour jéem a wane ni mbir mi demeewut noonu lii wag lii di expliquer day mel ni dañ la layee eh, li jëntil mbir mi wala nga ne ah lii de bu ko diw yëgee du baax donc nag bu fekkente ni bi yow yaay kilifa ki nga xamante ni kii mooy baat loolu dafa war a feeñ ci li nga xam ni mooy mbir mi mais doxalin wii nga xam ni moom lañ gis xalifa doxal ko euh, ci mbir mi je pense que ni kilifa dëgg warta doxalee li nga xamante ni noonu la xalifa doxalee yaakaar naa ni juum na waaw juum na ci ni nga xamante ni bi noonu la doxalee donc loolu mooy li nga xamante ni bi moom laa doon wax ci mbir moom mbokk yi ak xarit yi <coughs> dañuy ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Yérim Seck ki nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck dañu ko invité ci plateau Papa Ngagne njaay mu nekk fa ak ki nga xamante ni ki moom lañuy ñuy wax Amadou Ba bu Pastef moom Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck nettali waat waxi usmaan Sonko ji nga xamante ni bi moom la wax mu am nag sañ-sañu joxe ci li nga xam ni mooy gis-gisam lan mooy gis-gisu seex Yérim ci li nga xam ni moom la usmaan Sonko wax Ousmane ko dafa wax ni léeg-léeg may wax ak nit mu leer ma ne ma yaa ngi may enregistré ma wax la li nga bëgg a dégg ak ka nga koy dégtali li mu bëgg a dégg Cheikh Yérim d'abord dafa tooj parce que bu fekkee ne man dama wax sama wax tudduma tur mais dama ne nit Cheikh Yérim ne Bart lay waxal donc Cheikh Yérim non seulement dafa tooñ usmaan Sonko mais dafa tooñ Barthélémy Diaz parce que Ousmane Sonko bi muy wax tuddul nit ne diw waaye daf ne léeg-léeg may wax ak nit mu leer ma ne ma yaa ngi may enregistré waaye dama lay wax li nga bëgg a dégg waxaale la ña lay yónni la ñu bëgg a dégg Cheikh Yérim génn ne ñépp xam nañ ni Barthélemy lay waxal na wax ndax moom nañu wan beneen preuve boo xamante ni moo koy firndeel ne Ousmane Sonko Barthélemy lay waxal parce que Ousmane Sonko ñi mi waxal bari na téléphone lu tax Cheikh Yérim bëgg cee seppi Barthélemy ne moom lay waxal dingeen ne ma parce que contexte bi bi mbir mi xewee moo tax mu wax loolu walla ngeen ne li Barthélemy yëg ba tax mu dem tontu moo tax Cheikh Yérim wax loolu ne moom lay waxal waaye en ba tey. Ousmane Sonko moom tuddul turu Barthélemy ne moom laa wax ni moom ay enregistré loolu man dégguma ko te defe naa ñu bari dégguñu ko léegi nag Cheikh Yérim daf ñu bëgg a wax foofu benn mbir boo xamante ne bi daf ñu bëgg wan nañu Ousmane Sonko wax ji muy wax noonu waxu genre waxu bëlëf la waaw mais est tamit nekkul ni mënuñu ko jàngat tamit aussi tamit ci beneen côté boo xamante ni bii wax jooju mën na signifier tamit loolu que ni man ma seetlu ñi nga xamante ni bii d'abord ñi ngi may ñi ngi may enregistré ma wis comme niñ koy waxee rek benn mbir sànni ko pour presser la feu pour xam dëgg gi est-ce que nekkul tamit loolu moo tax Ousmane Sonko waxee noonu pour sànni mbaalam. ña cay njëkk a jàpp mu napp leen daan ne ah kon ñii bokk nañ ci ñi nga xamante ni bii ñu ngi may enregistré parce que lu tax ñuy tontu parce que ku yëg ni yow mosoo enregistré nit ki bu fekkente ni dafa wax lool war nga mën a zappe loolu bañ ko jox solo te xam ni yow moom du yow mais nag bu fekkente ni jox nga wax ji benn solo bi day tax nit ñi nag xoolaat la man duma ko def est-ce que dina doyati sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay xool parce que dañ naan ñi diw di waxal bari nañ et pourtant yow dong yaa ci génn ne man loolu duma ko def doomu làbbe la et cetera et cetera est-ce que nag yow yaa xool sa bopp yow yaa taqal sa bopp yow yaa tuumaal sa bopp parce que man bu fekkente ni bi man damay wax wax joo xamante ni bi ñi may waxal téléphone bari na tey ma xëy rek daat ne léeg-léeg am na ñu may enregistré leeg son yu bu ne bërët man de en tout cas man Euh, Touba laa dëkk man ku ma xam-xam ni Diop laa sant man moom yooyu duma ko def fenn bu boobaa est-ce nekkul ni mbaal gi jàpp na son yu bu nem kii kat ku dàq enregistré ci la donc loolu tamit Cheikh Yérim war nga mën a bàyyi xel ci loolu te ku ne xam nga ni buñ naan xarit wax nga moom téléphone am na yu bari yoo xamante ni bi xew na ak nit koo mën a nekkal wax ngeen téléphone kenn xamut ana kan moo lay enregistré ak ku la dut li am solo rek mooy nga njort wala nga am ay dut ci nit waaye laa barte moom kon yëgoon na ni Ousmane ko am na ci moom ay dut ba tax mu bëgg ko féetale mbir mi ba tax lu tax mu féetale ko boppam kon moom dafa mel ni njortu na ni moom ay dut wane ko lan la wane nag ba taxoon nag wóolootuñ la ci koo xamante ni kii da ngeen di wax ni ay doomu ndey ngeen loolu mbir la moo xamante ni bii mbir mu doy waar la mbokk yi ak xarit yi ñu dem ci sunu dernier point ñuy bi ñuy waxee ki nga xamante ni ki moom la ñuy wax Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz dafa am kàddu yoo xamante ni bi moom la yëkkati moom Barthélemy Diaz yan kàddu la yëkkati ñu déglu ko te ñëwaat. man jàppale naa fi ñit dimbali naa fi ñit defaral naa fi ñit lu ngeen xam ne ni maa ngi jógaru ci kàddu yi su ma yoon tegoon tey loxo. cour d'assises laay dem te mu ngi may dégg te soxlu ma indi ay preuve moom xam na man xam naa te yàlla xam na fa rek laa yem ci wax ci. xadi euh, kii tamit foog naa ni diggante mook Ousmane peut-être que nit ñi bi ci biti rek lañ xam mais li ci biir moo raw foog naa ni tey. voilà euh, gis nga. en image boo xoolee li nga xamante ni bii mooy wax ji wax ji Barth daf ko wax ne jàppale na nit dimbali naa fi nit loo xamante ni bii tey suñ ma ci jàppoon cour d'assises lañ may yóbbu loolu mooy li Barth wax mu nekk wax boo xam ne wax bu garaaw la. loo xam ne bu ñu ma ci jàppoon cour d'assises lañ may yóbbu Barth lan la war a mën a def lu garaaw luñ ko war a mën a yóbbee cour d'assises ki mu doon jàppale ci lan la ne ba tax barte di ko jàppale ci loo xam ne waroon nañ ko mën a yóbbu cour d'assises lan moo xew naam Barth bi mu waxee wax ji ba noppi de. Eh, ki monté vidéo bi moom dafa jàpp ni diggante Barthélemy la ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Ousmane Sonko ci la mbir moomu xew parce que ni mu monté video bi parce que dafa pare mu teg Jibi njaay bi muy wax euh, ci ki nga xam ni mooy diggante Barthélemy ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko mais li am solo mooy Ousmane Sonko moom bi mu nee léeg-léeg ma woo nit Barth dafa génn. mais Barth moom bi mu nee jàppale naa nit ba tey dégg gu ñu ko génn wax ni yëf yi moom moo ko moom donc loolu mooy problème bi lu tax kii moom bi mu waxee rek Barth génn na directement ñu ne. léeg-léeg nit téléphone ma rek Bart génn wax ni man du ma enregistré man duma ma nit romb naa loolu et wax a wax a wax waaye kii moom bi mu waxee moom Bart bi mu waxee jàppale naa fi nit defal naa nit li loo xam ne bu ñu ma ci kii woon cour d'assises dégguñu kenn ku génn moomale boppam wax ji te wax ji nag dafa nekk wax joo xam ni man jàpp naa ni procureur war nañu lijjantil lan la Bart def loo xamante ni bii war na mën a tax lu mel noonu am. lan xam nga Barth nag boo seetloo ay waxam Barth ku sañ wax la Barth man jàpp naa ni fi mu njëkkee wax benn wax bu gën a garaaw da di delluwaat ci wax jii mu wax delluwaat ginnaaw tuuti Barth am na benn vidéo bu Barth di wax ni président Macky Sall li mu am la xam waaye man li ma gis bu ñu jëlee waxu li ma gis ak jàppale naa fi nit kon donc dafa am foo xam ni Barth war nañu ci gindi walla ñi nga xam ni ñoo yor kaaraange réew mi jéem ñoo lijjantil lan moo xew parce que Barth dafa wax wax joo xamante ni bi wax ju garaaw la parce que bi mu waxee ne président Macky Sall li mu am xam na ko waaye man li ma gis na deltu ginnaaw lan la gis ba noppi ki waxoon loolu ñëw ne man jàppale naa nit loo xamante ni bii tey buñ ma ci jàppoon cour d'assises lañ ma yóbbu lan moo xew donc man jàpp naa ni Barth fi mu toll nii li gën ci moom mooy mu noppi parce que bu continuer di wax boo sàgganut làmmiñam dina ko dugal parce que bu ñu linkee ay waxi démbam ak waxi tayam daf ñuy yóbbu ci terrain bu ritax na moytu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di am saa su ne mbégte ak kontante saa su nuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions ñuy nuyu moo alaaji juuf ab du Top ak Ablaye Diallo ak Fallou ñi nekk ci xarala gi Sonia bu Diop directeur programme ñi ngi koy nuyu di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu ñuy joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf.